He got a lemon with sit long, made wine now. But I can't wait through his love is forty. Very fine, nice, yes. That book, huh? <laughs> Ibra, yeah. Ibra. Ibra. Good now. Uh. Wait, Ibra. Yes. At kan nga xam xamal nga soow Michael Jackson ba. Yeah. Uh. Mooy bi mu daan way, mooy soo mu tëdd ci daan ki daan ko accompagner. mooy bi mu daan yóbbu rek. wala moom xamatoo ko yow. xam naa ko jox ko jox ma ko. mooy bi mu daan yóbbu. par naaw. get now man siri. ndeysaan oh fine now. Ibra booba réer na la de. Peace long, peace long, peace long land. ay coobin xiifin yees ti balma. <laughs> no ñuuxin yees. fine naas yeew. ah nga ne ko. coobin yees tibbis yees jox ko. ah. fine yees fine yees. coobin yees tibbin yees. fine yees. no ñuuxin yees. ah. ay embauchement yees contrat. sur le plat. plat plat bi tàng na de. fine na fine na fine na. Ibra break oh. ma palaat yi. fer say rab daa yëngatu. non damay break. xaaral ma yëpp. yeah. wii. ñaata palaat nga bëgg. wii jox ma ñaari palaat. jëlal bi am bata. get long day. I want to find nice pair. Two very fine nice. Yeah, take care of it. géwél tiitin ina ko joxe palaas yi bu ma ko dóor non ndànk laa def yow dalal rek Michael yi Michael yi Michael jël waaw boo kii tat ko ci gun gun tat tat gun tat ko ci gun waa mais yow per fi nga génn tey am na de non di ma laa doon soow yu baax yi bàyyi soow bu baax ban nga am nanga naan xoolal taas mba taas gin kii ci gir rek gis nga gis nga ñëw kii ci rek droite bi ngay tàmbalee. droite man dafa ci dal gis nga gis nga kii ci gir ñëw kii ci gir rek tam gis nga gis nga kii sa poos yem sa poos daal di yokk. <laughs> dégale ko dégale ko dafa kole dégale ko yóbbu ko rek. dama. Ndeye bi dama ko bare. non bii am nga boo téye. sikk moom ak sax kenn danga dul jàpp. wax nga dëgg. waaw per màgg nga de looy naan xanaa sekki. waaw cat waay raxas mais attention mbomb gi. mbomb gi ni ngay bombe. jarul dem saal. d'accord Ibra na nga def. wuyu waaye ça va. mais bébé namu naa la. bilaay fit maa la foofu. xam nga ci kan laa daal di. Ah. Pape lu mu wax lu la waxul da koo fàtte. moom amul jom. nee na naka yow yaa koy daaneel. mais yow est-ce que xam nga benn affaire. waaw ndekete yow man yow laa bëgg. est-ce que xam nga sama yaay wax na ma ko góobu ko. mais nag da ngaa grossir de lu xew. Euh, grossir bi moo jaaxal moo jaaxal Djibi Sow jaaxal Sénégal jaaxal Dëggan Diallo jaaxal Ahmed Niang ñoom ñëpp. mais nag c'est de la bonne vitamine. na la amee wax sa këreem nag moom dem na silim de bàyyi na la fi de yaa ngi dugg kooba nag. kaay ma wax la ah a koy xaw a rey. Eh, a rey. <laughs> naa la xamal mbir nag daal waaw gis nga naa la xamal benn gis nga pour man mii nii. waaw man bu ma neexoon. nii nii bu ma taw bu ma neexoon suba bu ma àggee ci bopp bu ma pesee man bu ma neexee mën naa nekk cent dix kilos. cent dix kilos am joxal client bi. waaw waaw na ci coob bi la rek. jaajëf sëñ bi ñu ngi ah, jéggalu de. per jéggalu da nga xamul ni yow restaurant nga ne pour yow terrain football nga ne. ay war a say va-et-vient. mais liggéey day ànd sa va et comme ku war a dóor penalty. par jëlal. sandak sandak kay ma gas ni ñatti kay yow gasal ci gasaloo kii ci bërëb bi <laughs> waa gas sandak sandak kay ga gas ni ñatti dal gasal ci gasal Ibra yi muy def xam nga kii golo la mais xoole nit kii yi muy def ani ani ani na ko loxoom ba pare te loxo bi wóoru te maam ay microbe yow yow ñu la ñu yow yow la ñu ngi yow non non xam nga la ñu la indi fii di la jàppale ba pare Ibra man ren du ma la baal de xaw loo mel ne picc mu màgg xaw ma loo mel ne génn sa tàgg peut ko bala nga dem peut-être waaw ma dama ko ba waaw xaar ma daw dem xool ko ñëwaat waaw yow loolu day ko teel rek la dama ko fàtte woon bàyyi ma daw ana doxaay waaw demal te ñëw doxaay daa dem tuut ko doyen mais doyen doyen na bàyyi muy def. ma mag la mais bébé naa la yëgal lan de. est xam nga koo maase jamono mi lay bàyyi xel. ndekete yoo loolu dëgg la. yow koo maase jamono mi ngi lay bàyyi xel. waaye kenn du yow waaye nu ma la namee ëpp. ah yow waaw sa mag yi nga tax ataraab ku la ñawal. jibi sawa def yi xoolal te dafa xam ni zone ngay génn moo tax ñu def zone te sonalul kenn. da nga war di bàyyi toppandoo ak di caché ay couleurs. parce que je t'aime. ma caché nga caché. parce que je da nga mën a sañse. maaleykum salaam. soxna si ngeen def tey jaajëf bu baax. yaa ngi si jàmm ça va bien. yaa ngi fay. waaye fay. ça va soxna si lu am. da nga bëgg a nekk videur fii. non pas videur dama bëgg a. ah da ngay toog ah, ah, installé ko gay. toogal toogal toogal je je t'en prie toogal. allo ça va. ça va bien ça va bien. ça va bien faites comme chez toi. ok y a pas de problème. ok ok donc kii benn sel moo am ah. waaw sel am problème dafa am benn place. bëgg nga waaw ah, waaw. defaral ko benn place. xanaa fukki palaat lay leer. non benn benn mais soxna si plat bi xaw na kii de. bari plat dafa xaw wax na dëgg tolloowul ak ñoom. ah mais kon yow duuru plat lay defaral ak. benn benn rek baax na. Ah, waaw ok defaral defaral ko ñu ay client la yoo xamante ni su ñu ñëwee da leen defaral lu jekk pour ñu mën a. mais sànni da nga leen di enquête loxo wala kudd. non jox ma kudd jox ma kudd. ok ok ok waaw jaajëf quoi jaajëf. waaw. gannaaw man dama la xàmmee yow. mii de ah. fan noonu. non non taala laa la jàll. taala laa la jàll taala laa la jàll. jaajëf waay sama benn copain la quoi. oui ah. dëgg la kay. il il il ma joxul yow. bàyyi rek. mais yow tamit. dama lay bañ a sonal mais je contribue. je je contribue. nekkatu yow da nga neex. nekkatu yow maa la bëgg. jaajëf ku baax. bon appétit bon appétit. am na ndox. waaw kii de ndox la jël woon. xëy na su ñëwee indaale ko. yow daal sa laaj mi ngi woon naa la doxalee. ay photo ak defo rek. di la bëgg di la bëgg ba keroog may may dee. nag du yow da fragile. foofu bébé noo xamee loolu yow xam nga ni ko dama fragile. ak. kan la. bàyyi ko si biir bàyyi ko. soxna si merci ah maa ngi dem. encaissé ku baax. waaw jaajëf waay merci neex na mbaa. maa ngi dem waaw. 1500 la plat bi. 1500. waaw mm-hmm. n'est-ce pas yéen a fi bind suba amul fay. suba amul fay ko moo doon ma ñëw tey ah. ba nga juddoo ba nga dugg lekk nga naan suba amul fay suba amul fay dafa tax nga ñu woo la. ne la nest a ko fi bind fay dërëm soxna si nii nga ma fay ah tey. sérieusement démb fi a ko fi mais yow yaay kan ba doo nga toll bu fekkoon amul fayee tax nga toll nii yow doo lekk ci sa addina de tout façon man loolu sama nekk si yéen a bind suba amul fay. du ma fay yow kii na ma fay. Poté toogal. toogal na jël ah. ku. saa ku waaw ça va nga def. sant yàlla. Euh, plat bi fay ko quoi. pour lan may fay waaw mais yow tuuti kii ba doo. sa waay ko fay yéen ko bind. yéen a bind suba amul fay. Ah, man maa ko loolu man maa ko bind. waaw tey. waaw tey la nu wax quoi. non lii la lii lan la. suba amul fay suba laa la wax amul fay. démb n'est-ce pas fi démb démb la ngeen bindu ko fi. yow daal loolu ñun suñu yoon nekk ci tey amul fay ak suba da ngay fay. si déggoo la ma du ma la fay dërëm. ma ko fay. jege ko na jël ko. na barke yow ma nga xam barke ko fay de. yow ma ko fay de déggoo la ma ko jege ko na ma fay non defal na rek. boo eh, eh ko mënta ma génn. non du ma ko laa dul fay ku baax benn appel laay émettre du ma fay la benn appel laay émettre. maanaam ma dem soirée du ñëwaat rek. dama si toile bi ah, na fay na fay. eh topp ko mais luy bu ma xaat gis nga kii mooy bëma doo def nànk rek ma maa ngi àll waaye lan mooy def nànk kon may ma man ma génn may ma ma génn yow comme jëw góor mënoo koo faj man jigéen ma faj ko di nga fay plat di nga fay plat bi rek man dinaa ko régler tapet bu zone bi nga kii ponkal nu toog fii lekk fayul. am war ma jox 1500 fayul. ku lekk fay. mais daf ma war dëkk lekk fii nag barke yaa rasul bi ma fay. lii tax ma bëgg la lii tax ma bëgg la na ma fay. kay kay kay ma la. nii la jaar si tuwaale man man lekk soo yaay. nii si tuwaale ah, jëw ngeen ma waay. nii si tuwaale jëw ngeen ma waay yéen waay. yow moom ma bëgg la yow doo góor doo ah, ngay lu tax doo góor. stratégie nga yorum fit bu bisu dee ñëwee da ngay xam ne bisu dee la. ma fay ma pour. mayu benn góor muy lekk bu zone bi. na ma ngi nii maa ngi nii fajuma dara. na ma fay ak yonent 1500 yi laa bëgg nga jox la. du ma fay dara dara laa dul fay. père kon rek la loolu. la la yow da yow da nga ñàkk fayda. ndekete yow da nga ñàkk fayda. stratégie laay def. stratégie non na ma fay wala man ma génn. bul génn de. ne sors pas man du ma yow. man jigéen ju mën góor laa damay fay par force ndax togguma fi lu may may. ba peut-être bàyyi leen léegi nana saa. waaw doom baal rek mu gisatu. waaye yow. nit dangay xam nit. ñoom ay du ñu di dama lay wax leer man nit ki duma fay dama lay wax dama lay wax de dama ma rek maa ngi lay déglu mais duma fay dërëm jéngu yow mënoo dama lay expliquer en tant que jullit ak mbokkam jullit ak mbokkam dégg nga baal nga jullit ak mbokkam maa lay déglu waaw xoolal man dinaa wax ak ñoom man danaa dem wax ak ñoom lépp moo koy jëm ci restaurant wax da liñ

yow kay gëm nga ponkal bi. mbaa xam ne du fekkee coonoy borom. Ah, attaqué na ma fay yow si waaj. Ah. ak nu mënti toll par A ou bien tey dana fay ba ah. daan ko robi. nañ ko robi nañ ko nañ ko dëdd. noppi pare. nama fay nama fay. nama fay kafu ma reeyu ma nama fay. man dama fee toog di maye. da da nga foog ne lekk dama dama la ko jox. da nga may fay fa force. fay dërëm laa mën a fay. am na am na lu waxtaane woon. amul problème doon ok day kaay. di nga fay de. doy moom doo góor kooba nga. roog day la kooba nga. kooba nga. kooba bu mag nga. man xam nga jegewu ma sax ay kooba. waaye ba nga dee nii nga ko nekk kaay. na ma fay. damay xam la de. waa ji mbër la de. waa ji gis nga ni mu. waa ci loxo bi barki la. <laughs> waaw da ma ne tiim loxo bi daal bu ndam kadal pla wuy ma wala di ma bëma ma xam ne sa gàcce taxaw na tey waaw yow mënoo génn xale bu jigéen ba pare góor taxaw ne du ko fay ka taxaw di seetaan même teg bi yow loo gis loolu ci xaalis man yoon naa fi sept cent sept cent Ibra Ibra dañoo nekk mille francs génneel li nga yor yoon naa mille francs pour lan pour lan non génneel rek ndëpp ko bu ko peut-être gis góor a yor soxna ba pare yow de xam nga góor ñooñu ñu dab di ñam ànd ah, ak seen soxla dab leen ñam di la léegi ma kaay ma dama lay wan léegi pour lan la li ara na <laughs> damay ñëw rek damay sore sama bakkan de am man mi ja doy baa doom jiwiñ je te jiwiñ yi ne bëggee couleur bu jaune ah ah dama lay expliquer oui du dara du nappe du dara maa ngay miir nag oui ma pour léegi yow xoolal da tàggoo rek daan na waaw sa waay man la waaw yow laa gis quoi. te waxal la waaw nga waxal léegi mën nga ci ponkolaay mu mel ne fóotu doon fay gi garaawul bul fay dégg waaw ah, non mën nga tàggoo rek ne ma saa non yow laa ci ruus quoi non père yow laa ci ruuse waaw ah, ah, mais bu woon loolu xoolal amul problème ruus naa la si nag ñoo far ñoo far ñoo far yow ñoo far ñoo far amul ruus dara da ngay far waay sama danga baax boo dul fayal mbaa xamal ne danga fayal parce que yaa rasul la yow eh. par ñëwul amoon ndam dara waaye. fay. man yow laa gëm. jox ko Côte Dior ak Dior Tamiñel man yow laa gëm. li ñaata la. 1000 francs li ñaata la. 500. merci beaucoup man yow laa gëm. doo ñoom te duñu yow nag. te tey jii wan nga ma sa bopp. côté man li ma def stratégie la. te yow tamit la ma après la. bul wax ak man. waaw yow tamit bul wax ak man te yow li lay xaar xam nga ko. mu yéen. waaw mais ki li muy def nii waaw waaw lii pour la mais su may concentré wu lu tax ngeen libéré gaañ bi may dem xool après. yow de sa xol na sedd yaa sa waay. Ibra góor góor. waaw léegi loo bëgg yow. Ah, médecin appelé la la mort. dama nga toog dama nga toog yu mel ni bëgguma mu am fii quoi. Ibra joodoo. góor joodoo moom. man xoolal gën naa la naw. te xam naa ne bokkoo ci kooba yi. te munoo nekk kooba yow. ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba